mentale voilà ak naqar bi nekk ci population bi dañoo encaissé lu bari moo indi lu ni mel loolu day muur lu bari ci li nga xamante ni si xëy na am na ci lu baax wala ay jéego yoo xam ne nguur bu Sénégal def na ko du neex a gis parce que askan wi day jiital li nga xamante ni si mooy mettitam day jiital li nga xamante ni si mooy jafe-jafe yi muy dund day jiital li nga xam ne mooy yaakaaram gu tas ci lu mu amoon espoir que ni lii bu ñëwee dina am ak coppite wala lii dina am amélioration loolu mooy indi lu ni ba day suul xëy na jëf ji nga xam ne mi ngi rafet wala mi ngi baax as as lëf ñi nga xam ne ñoo jiite ñi ngi koy def moo tax ñoom li nga wax sànq ñoo war a reculer pour mieux sauter. Mm-hmm. xool li nga xam ne ñi ngi koy def ci lu baax ñu gën ko jëmal di jege seen askan di waxtaan ak moom def ci yërmande goo xam ne fexe ba mu gën a oyof yan bi gën a oyof ci askanum Sénégal moo xam ci pàcc yëpp ndax Sénégal foo laal day metti mm-hmm. moo jëm ci wàllu wér-gu-yaram gi n'empêche am na ay dund gi jafe na location lépp loo xamante ni si daal askan da koy soxla boo ko laalee day metti ba tax na day suul la nga xam ni njariñ la nga def ko ca ñoom ñu war a rectifier mi ngi noonu dañu war a rectifier mais nag comme ni nga ko waxee euh, bëri na ñoom itam lu ñu fi defar. te xam nga bu ñu toggee tamit di fàttali ñuy defar xëy na daf leen di ñàkk euh, encouragé te tey euh, askan di encouragé nguuram nag wax fa dëgg yàlla ñoom def nañ fi mbirum luwaas yi lee ñu wàññi woon ko. boroom kër yi ñun askan wi ba tey ñu ne génne nit ñi nan la dañuy defaraat kër gi nga dem changer benn bunt wala toj benn robinet changer ko. changé benn lavabo pour firndeel ni rek y avait un travaux à faire travaux boobu Nafisatu ñëw asma jóge foofu nga xool ne xam naa ni kii mën na ma fi indil problème léegi xaaral ma yokk ko deux cent mille bu doon cent cinquante mille lay jaar et loolu dafa créer benn hausse de loyer boo xamante ni naam am na ñu ñuy naan euh, waroon nañoo def suivi waaye lu ñu def def def suivi est-ce que jub tamit gënu ko ndax loolu mesure loolu pour askan wi. Mm-hmm. waaye bu fekkee ni borom kër yi ñoom itam ñu bokk ci askan wi waaw amuñu yërmande wu askan wi ba tey ñunu askan wi ñoo ñàkk suñu yërmande ci suñu bopp du dëgg. Mm. kon nag suñu poche rek li ñuy xalaat sama bopp sama bopp sama bopp est-ce qu'il pas temps de dire suñu bopp. bu ko defee ñu xam ne ni Sénégal gi ñoo ko bokk te bu méttee ci ñun ñëpp lay tar. gis nga Asma li nga wax nii dañ ci war a gën a bàyyi xel surtout pour locataire parce que Sénégal ñu fi am kër bëriwuñu da ngay gis koo xamante ne dafay liggéey ba retraité pour mu am sa terrain sans problème ndax lan déjà salaire am mayu ko loolu mais aussi bu fekkente ne da ngay jël yenn da ngay jël yenn yenn engagement yi dafay dafay dafay dafay baax nga saytu ko xool ko bu baax parce que da ngay gis Asma tey boo amoon sa immeuble nga def bëree bëri nga ne a fayee ko la nga fere ci immeuble yow yaa ko xam ciment baa ngi fi béton baa ngi fi fer baa ngi fi ak yeneen ak yeneen kooku bu dépensé ay millions ci immeuble am bu ñëwee nga ne ko da ngay wàññi li nga xamante ne moom mooy sa location alors que yow xamoo man ban budget la am xamoo ban prêt la am ban prêt bancaire loolu aussi ça pose problème donc war nañu xool li nga xamante ne war nañ ko wàññi ba pare ci dëkk bi bu ñu wàññee seeni i ba ñu xam ne population bi produit yu bëri accessible na pour ñoom bu boobaa ñu mën a wax yenn yi Aïcha mi ngi noonu loolu moom dëgg bu wér peng la mais il faut à un moment donné qu'on kon euh, synergie de la générosité dafa war a am dama war dama la war a yéene xam nga nit moom bu jugee ne dama am sama yaakaar yaakaar gi prêt bancaire yàgg na fi te les taux ont presque toujours été les même euh, tey am na ay banque pour ne pas faire de la publicité yoo xamante ni c'est typiquement euh, sénégalais pour accompagner tout ce qui est construction ainsi de suite mhm. yow boo tànnee sa banque boobulee nga dem ba ca foofule ah mhm. mais boo tabaxee sa kër nguur gi ñoo indi dogal boobule lu ci baaxut au que nga génnee nit ki di utaat utalal sa bopp pexe mhm. da ngeen di ut kuréel bu leen di représenté bu ko defee ngeen euh, bind bataaxal buy dem ba ca nguur ga euh, ministère bi war bu ko defee ma mu càmbar ko encore une fois ay nit ñoo fa nekk du ñu ay yàlla du dëgg mhm. te nag yàlla rek a mat te ñoom mën nañ am xalaat gu rafet waaye jëfin bi des ndax ñàkk xam te ñoom tamit faw ñu nangu ni dañoo ñàkk xam te matlewuñu du dëgg mais imagine imaginez par exemple état bi construire par exemple benn cinq cités wala six wala dix cités yoo xam ne dañ fay dugal ay nit les logements sociaux yooyu ñu nekk di wax imaginez ñu def ko ba pare léegi ñu bàyyi la pour nga fay ko nank-nank ba par exemple ay vingt ans yu deme noonu mhm. après nga moom kii logement bi donc day fekk day loolu déjà day day tax ba après Dakar parce que Dakar comme ni ñu koy waxee Dakar moo gën cher les logements dañ koy wax ba ci télévision yi nga xam ne yu gën mag ci àdduna bi dañuy wax ne Dakar logement Dakar que day permettre nii ñu jógee ci biir a gën a gën a gën boo xoolee location la transport et tout ce qui va se passer en tout ngi noonu dund gi daal seer na mi nga ko dañuy koy ndar képpe fii ab xalaat la rek sottante ko ci suñu biir bu ko defee ñu xool càmbar li nga xamante ni moo fi doxut yéen tamit góorgóorlu leen ba saa yoo leen xëyee yéen ñi nekk ci bopp nguur gi ngeen di def noonu moo gën seen costume yi ngeen di yóbbu banlieue boo leen dematee dootoo leen ko defati yéen président def na ko daaw de gis nga ko moom Antoine Diome moom sant bi wuyu ko dara Aïcha mi ngi noonu ñu àddu nag Soxna Fall ci tàggat yaram bu ko defee ñu yaatal Afrobasket moom la ñuy àddu ñu ubbeeku ak moom le Sénégal entre en lice aujourd'hui même Soxna Fall. voilà Asma Khadija gaynde Sénégal yi ñu xaarandi leen kon tey la ñuy jogante seen match bu njëkk seen diggante ak Ouganda lay doon 16h la ñu koy daal di euh, jogante Afrobasket bi nag door na nag euh, démb ci xibaar communiqué bu ñu jot léegi ci comité technique euh, di décision boo xam ne waa FIBA ñoo ko daal di jël match bi waroon a dox ci diggante Cameroun ak Sud Soudan ñooñu nag ay adversaires yu Sénégal lañu wax nañu ne dañu déclaré na forfait jox ki nga xam ne